tapis rouge yàgg na bégal Sénégal ci qualité jënd meuble fii ci tapis rouge day neex ba doo waxaale. loo soxla ci électroménager ñu jàppale la établissement takku liggéey góorgóorlu Diaw et frère Diaw et frère yaa baax kenn du yow. dans leen jàmm ci établissement takku liggéey jaw et frère commerçant bu mag bàngoog lépp lu ci import export rawatina nag ay meuble yéen waa Zac bu mbaaw yéen waa Sicap mbaaw yéen waa Thiaroye Azur lépp lu ngeen daan jëggaani biir ndakaaru am na fii soxlaatul ngay paas di dem ndakaaru soxlaatul ngay paas di dem fenn lépp loo soxla am na fii ci Sicap mbaaw da ngay ñëw xool li nga bëgg ñu livrer la ko xam matériel électroménager wala salon salon yu mucc ay salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yëpp am nañ ko ci qualité supérieure nag dañ lay jaay salon ba noppi jox la table jox la moquette jox la pot de fleur xanaa ay wax day jeex lii de boo demee ndakaaru doo ko am yaatoowuñu xol noonu ni ñun matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la ñu lay defal seen mbokk émigré nekkoon Espagne ñëw investir fii ci Sénégal ne day jàppale réewam di góorgóorlu képp ko xam tamit am nga bu màgget pare nañu pour nga ñëw dugal ko ñu jox la bu bees dañoo pare pour dimbali leen mën nga ñëw ñu jox la saloo nga dugal moitié li ci des nga fay ko ndànk-ndànk xanaa kay ñun ñooy góor góorgóorlu xanaa kay ñun ñoo dimbali njaboot gi xanaa kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu dee tele yi tamit noonu garantie dong la ñu lay laaj livré la ko à domicile place bi mi ngi nekk Sicap Mbao ci rond point EDK bi ci ginnaaw hôpital bi villa numéro 923 jano ak mosquée vert blanc woo ñu ci 78 02 12 84 75 wala nga 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 livraison à domicile Kër Massar Le poulot sur le petit salon soxla ci salon petit soxla ci électroménager ñu la dimbali la taxaw établissement Takuligei liggéey Diaw et frère jaw et frère du Bikini Production remercie ses partenaires. ban jigéen mooy jur doomam ba pare di ko beddi xanaa jigéen ju bon pas pour moi, nous changer. Djunga de. Sa papa mi changer na bu baax. Lepp lu mu def amna fu ko tek. Aduna jangal nako de. Fo jam? Xana ci bir. Ñi dañuy waxtaan motax ma tok fi. Lu sama yon ci seen waxtaan? Man may tok fi. Kulandeer bi dima ray. Kon nga dem xaar leen ci salle. am jam am. sai bi tas naku te hmm. mayatuloo mu ndaw jox naa ko papa, moom moo koy yor kon madame Lo monsieur Lo walloowutul ak yow dara du pension alimentaire du luwaay du xaalis exclusivité bi sa yaay rek la koy jox. Hmm. bi jé pour mo mës takal di jabar yow nekkati mëno tan man mi rek ma mëna tan birub jabar mom pour ci dugati xana bëggo ñentel te man dama la no dama no lol sax sax. yéen bul ma mës a takkale jabar yow ndekete mënoo tànn man mii rek maa mën a tànn mbirum jabar moom bul ci dugg maa fii Ela na nga def mbaa sonno si yoon bi non non ça va bien ça va alhamdulilah ah yow sañse nga de ah, ah yow ñu ngi si si sow <laughs> kontaan naa de ça va ça va bien bien merci waaye yow Fatou Kiné Sène sage-femme moom lañ la tuddee waaw na nga ko xam bu baax xanaa hôpital nga ko war a déedéet fii laa ko xamee ci dëkk bi. ah uh-huh. Ndaama. kër gi sa kër la saay wu la ñëwal amu fi benn sens interdit. ci nga bokk de. <laughs> <laughs> yow qu'est-ce qui la. si lan yaay booy. yow kii ci tinis ba tey mi ngi fi toog di la xaar nga tëdd ci ni doo génn néeg. yaay booy kuntul xaar damay xaare oh. lii sama première rencontre la il faut mu wane suma élégance suma beauté ak suma charme. te nag dama ne ci moom. waajtaay bi ci boppam moo yàgg. kenn wuy jantal. ak biir à la demande. <laughs> waaye nag jantal du ci sañse bu rafet jantal ci comportement la jantal du toroxal jigéen dégg nga li la naa ci bàyyi xel. <laughs> المعق لما لو خكرت سفر الدقلة لو أملا تمالك لنا فوري مام وينك من هرم لكونا بجين مام لكونا وخ تبعي نبوتوي وينك آه يا ما جينا خم بجين مام جاغو مو ديتي خلبي motax yow tegula sax ngay nit te yéen a daf leen a waroon a yemale ndax yéen ñaar yéen a yem ci moom mu bañ am benn gën a la seen diggante moom waaw mais nag gis nga kum ko sippi la bëgg waaye yow sax ba nettali woo ko suñu xuloo bi déedéet ah soo ko koy wax kër gi tas bu ko wax de dégg nga bu ko ko nettali. waaw ah. yow da sama xarit mbaa baal nga ma baal ma dégg nga bu la dara metti bula la dara metti سياسي يا خو مالدي انجاك مونيو سمكر نياريون فيك موفا ما هو التليفون جوت مكو ماني حالكم رومو ناخ في كيروك حال مانيو خول كوفي ايه يا ولا كانت صح من من جاغا اه صح الله من من لا ساورو خاش نجاغا mana ak moom ñoo ñoo nekkandoo Europe sànq sax man seker ñoo sa kër. ah bal ma leen ma de dañu amoon malade nag loolu moo tax fekkoo leen ma fa. c'est pas grave c'est pas grave est-ce que mais man tàggoo moom loolu déjà fi baax waxal ma ngi lay dégg. eh yow Fatou Kiné Fatou Kiné woy xaw ma pare nga xaw ma yow njaago fan la dem ba waxtu geewe jot. dafa génn. dafa génn fu mu dem tàggu na la. dafa am ku mu seeti. mais yow xanaa ki mu seeti amul tur. mais yow lan ma sa problème nan nga may enquêté nii. waaw mais yow nit nga yow nga bàyyi xale bu tuuti génn guddi dem doxi mais wax yow nga naan ma fii la xale yi jaar xanaa damay bëgg a jommi man. am nañ fàttali ne yow lii ba jàmm la mais non man damay bëgg a daf wala mais te man tellement yuuxu waaw man xam naa maa ngi ñëw ñibbi. déedéet toog nañu waxtaan. kan lay waxtaanal yow. loolu rek lan la. yow nga xam ne boo waxee benn moom toogaat dix minutes soo ko waxaat beneen. man nag dama xaw a dama xaw a timide waxagoo sa soxla de. dégg naa sa papa dafa feebar. waaw dafa feebar mais mi ngi tane nag alhamdulilah. dinaa ko seet si dinaa ko seet si. ah d' naa la xaar soo ñëwee àndaale ak madame su ko defee ma xamaale ko. ಮಜ್ಜವರ್ಗೂ ಆ ಸೆಲಿಬತೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಲಿಬದಲ್ಗೂ ಮಕ್ saya ಅಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಬರ್ Ah, bu toll ni yow lan ngay xaar xale yu jigéen ñi bari ci dëkk bi fees dell bëgg saya xam nga rek jabar moom danga koy tànn quoi kenn ko sal salaatu kau ah. sànq si rek bu ndaw ba dara méttiwu la déedéet bàcca dara méttiwu ma maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah macha allah man kay bàcca waxoo leen ma ba léegi médecin bi lan la wax bu ndaw médecin bi ne da nga manqué nelaw rek bàjjan manqué nelaw kese bàjjan loolu naka la mën a nekkee ga moom man duma téla tedd mais tamit duma télé yow té te yu ma ñé ba paré damay sies damay nelaw ba sama xol sedd mu ju donc naka la mënee nekk ka dañé nelaw kessé mais bu ndaw bu dul lan la bàjjan man dama yaakaar ni est ce que awma ma bu dul wér moom xale bu ndaw naka la mën a amee feebar bu dul wér. bàcc comme for la ci mbalit feebar bu ne mën la caa daal bu kan lañu fore ci mbalit kan moo la wax loolu engagé man bëgguma dugg ci détail mais loolu loolu waa koñ bi yëpp yàgg nañ ma ko xoolee man maa ci bàyyi woon xel Wow, Manko tu vas bien. oui ça va bien. gisoo sama doom ban. bon yow ya, tam benn ñaata doom nga fi am. jaago laay ya, wax quoi? ah jaago. Oh, xoolal tase naa moom koñ bële mu ànd ak ay xale yu góor. koñ ban. koñ bee rek soo jaadee si boutique bi noonu foofu laa ko tapis rouge yàgg na bégal Sénégal ci qualité te ci tabaski bi ku fi jënd ay meubles ñu may ko ay La grande surprise vous attend. Nous mettons en solde nos chambres à coucher de modèle royal. Tapis rouge mon su ngeen chambre à coucher VIP Nous tegal leen ci moquette deux pose-pieds voilà, descente de lit avec deux chaises en bois.

Et avec cette promo Tabaski, Tapirouge vous ouvre ses portes tous les dimanches. Waouh wow! Deflen vous gaaw commande sur WhatsApp est 77 730 87 87. Dans l'établissement ci établissement Takuligé Gorgorlou et frère commerçant bu Bango Lip lepp lu jëm import export rawatina nak ay meubles Zak wa Yenwa bu Yenwa wa Sikap Azur. lépp lu ngeen daan jëggaani biir ndakaaru am na fii soxlaatul ngay paas di dem ndakaaru soxlaatul ngay paas di dem fenn lépp loo soxla am na fii ci Sicap Mbao da ngay ñëw xool li nga bëgg ñu livre la ko moo xam matériel électroménager wala salon salon yu mucc ay salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yëpp am nañ ko ci qualité supérieure nag dañ lay jaay salon ba noppi jox la table jox la moket jox la pot de fleur xanaa ay wax day jeex lii de boo demee ndakaaru doo ko am yaatoowuñu xol noonu ni ñun matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la ñu lay defal seen mbokk émigré nekkoon Espagne ñëw investir fii ci Sénégal ne day jàppale réewam di góor góorgóorlu képp ko xam ni tamit am nga salon bu màgget pare nañu pour nga ñëw dugal ko ñu jox la bu bees dañoo pare pour dimbali leen mën nga ñëw ñu jox la salon nga dugal moitié li ci des nga fay ko ndànk-ndànk xanaa kay ñun ñooy góorgóorlu xanaa kay ñun ñoo dimbali njaboot gi xanaa kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu télé yi tamit garantie Donc le lay lacc livrer le à domicile place bi mi ngi point EDK bi ci hôpital bi villa numéro 923 jano ak mosquée vert blanc ou ci 78 012 84 75 wala nga woñu 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 livraison à domicile Kirmassar Massar ak plus sur le petit soxla salon.

ku am doom bu am 40 ans mënta fexe ba takk jabar ma ko cër. coach nga kay. loo bëgg. kay coach coach nga. <laughs> national moom soxal na la moom jaay booy. ba tey. mais nag booy baa ngi toog ci saal bi di ma doser di semer xoolal di màcc ay tuñ di jaay cher waaye baa nga a cher. xamul loolu. Hmm. bu bëggul ba tey ñibbi na ci timis ba tey mi ngi fi toog. waaye kon yooyu mi ngi am ba léegi. waaw waaw. man dama jàpp da nga ñëw doxal nit ki bu la nobee mën na nob naa la bu la nobul mën na nob ku nekk dem. eh toog di jaayante affaire man aw ma temps aw patience boobu man. loolu dafa yomb sax. relation mariage fa mu nekkoon ba tey ma ka gunge ko ba ci kër ga. lii def dinaa ko gunge du sax yem si buntu kër gi ci biir kër gi laa jëm. foo jëm bul dugute teel na ah, bul dugg. kon baax na. waaye gis nga waaye gis nga ko war naa ko fi yëpp. damaa dem ba koñ bële gis ay xale yu góor yi taxaw fee sax ma foogoon ni ci bokk ma daw ba foofu ndekete nekk. est-ce que doo delluwaat nga seetaan ko. delluwaat. waaw siis bii laay toog lu mu guddi guddi guddi fii ci kër gi lay fanaan si dina ma fekk. waaw dama ko toog waaye yow maa ko kañ nga fiiree nii. Marie Jeanne yow su yoon nekku ci. toppatoo sa affaire. xaw ma kande waaye yow sa problème foog eh, ngi fo fo foo yëm doo toog. sëwru am nga lu bari Fatou Kiné Gomis seet si góor ba heure bii nga takk téere daa mel ni xeer nga de séeréer laa koy noo ko xamee sama bàjjen dafa am benn doomu càmmiñam tudd sëwru seen loolu moo tax sa tur bi duma ko fàtte ah, awa sa bàjjen dafa am donc càmm ñoom bu tudd seen. Mm-hmm. mais nag danañ laajte bu baax papaam Saxiir seen la tudd yaayam Njole mais daf leen bëgg nag buy wax ci ñoom dafay jooy. loolu doy na waar de. doy na waar trop sax mais nag coïncidence la rek. Mm-hmm. coïncidence la kay coïncidence la. d'accord maa ngi dem. maa ngi dem. فاهمه بعمل اهو بجم نفر لجمل kon feebar bu ne mën na man bëgguma dugg ci détail mais loolu loolu waa koñ bi yëpp yàgg nañ ma ko xoolee man maa ci bàyyi woon xel maa ko lan def ci buntu kër gi. mais damay fexlu. fexlu dama la soxla woon ci biir dama bëgguñ waxtaan dafa am lu ma lay laaj. waaw xanaa li ngay wax da nga ko mën tax fii. ci mbedd mi. waaw fii kan moo fi nekk. maa ngi yow ak yàlla. maa ngi lay xaar ci biir. waa baax na maa ngi kañ la ñuy gisewaat. gisantewaat ci lan. Ndiago bu fekkee dama la commencé soof doo ko wax. est-ce que boo amee loo war a wax doo ko wax. dama la nopp. ay ay ay. lo dama la nopp ngay ree. <laughs> dégg la.

man lan laa sàq ak bu ndaw ba naan ko dañ laa forti Malick nga xamante ne nii kuy sot rek moom lay dimbali def bu ndaw nga xamante ni saa yoo mu topp sa ginnaaw ko wóoree ñëw ci lay ñëw toog ci kër gi kon nag ku mel noonu man kon nag yow nii la mën a nax na la wax nag fan la ko déggee te man bu ma ci tudd du ma moromam du ma màppandoomam sequma ak moom dara parce que xale bu yaradiku la te man xale bu yaradiku man dama koy classé ci kii bi. ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಕ ಮೆಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇನು ಬಲಿಗಿದೆ ಹೋಗ ಹಾಂ ಇವತ್ತು ಹೋಗ Wim. Anh là boy bị chụp nè. Dạ boy, bao nhiêu mày lại boy? À, anh lại boy, dạ boy. Lum là bao? Oh, hồi đó đâu phải là đẹp nữa mà. Thấy yêu đang cái final. sa affaire baax na. affaire bu baax la yaa ku ñu déedéet kay waaw nga wax. yaa kii wax moom laa raw de dafa ne ma rek dégg naa la. gis nga jigéen bu la ñuwul déedéet wax na la waaw. Hmm. eh kañ nga ragal. wuy ko invitation. det, não vil jeg bo i. Nå har jeg boet. Fortell. Dol ko invitation. léegi su su ma ko invité lan laa koy wax. bu ñëwee nga tegal ko lu weex tàll lu mu dul de. yaakaar naa su ma ko invité dina ñëw. mujj ma wax lu ma wax de. day ñëw loolu du problème. Tá, Kini Production remercie ses partenaires. tapis rouge yàgg le bégal Sénégal de qualité jënd meubles, fii ci tapis rouge day neex ba doo Jet set simplement waouh. loo soxla ci électroménager ñu jàppale la établissement takku liggéey góor góor lu frère Diaw et frère yaa baax kenn du yow. dal leen jàmm ci établissement takku liggéey góor lu et frère commerçant bu mag bàngoog lépp lu jëm ci import export rawatina nag ay meubles yéen waa ZAC bu mbaaw yéen waa Sicap mbaaw yéen waa Thiaroye Azur lépp lu ngeen daan jëggaani biir ndakaaru am na fii soxlaatul ngay paas di dem ndakaaru soxlaatul ngay paas di dem. fenn lépp loo soxla am na fii ci mbaaw dangay ñëw xool li nga bëgg ñu livre la ko moo xam matériel électroménager wala salon salon yu mucc ay salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yëpp am nañ ko ci qualité supérieure nag dañ lay jaay salon ba noppi jox la table jox la moket jox la pot de fleur xanaa ay wax day jeex lii de boo demee ndakaaru doo ko am yaatoowuñu xool noonu ni ñun matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la lay defal seen mbokku émigré nekkoon Espagne ñëw investir fii ci Sénégal ne day jàppale réewam di góor góorgóorlu képp ko xam ne tamit am nga salon bu màgget pare nañu pour nga ñëw dugal ko ñu jox la bu bees dañoo pare pour dimbali leen mën nga ñëw ñu jox la salon nga dugal mu wàccee li ci des nga fay ko ndànk-ndànk xanaa kay ñun ñooy góor góorgóorlu xanaa kay ñun ñooy dimbali njaboot gi xanaa kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu dee tele yi tamit noonu garantie dong la ñu lay laaj livré la ko à domicile place bi mi ngi nekk Sicap point EDK bi hôpital villa numéro 923 Djano ak mosquée vert blanc ou on ci 78 012 84 75 wala nga 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 livraison à domicile Kër Massar ak Liko sur le petit salon lo soxla ci électroménager ñu jàppale la dimbali la taxaw établissement takku gor frère Diaw et frère. Diaw et frère ndax kenn du yow. tapis rouge yàgg na bégal Sénégal ci qualité te ci tabaski bi ku fi jënd ay meubles ñu may ko ay cadeau. La grande surprise vous attend. Nous mettons en solde nos chambres à coucher de modèle royal. Tapis rouge, mon air su ngeen jende, chambre à coucher VIP ñu tegal leen ci moquette deux poses pieds wala descente de lit avec deux chaises en bois. Amna na tapis rouge am tapis rouge am que tapis showroom tapis rouge leen méga promo tabaski bi ay chambre à coucher si 650 000 nous may la ben pouf avec rangement étagère.

Et avec cette promo Tabaski, Tapis Rouge vous ouvre ses portes tous les dimanches. Waouh wow. Def c'est une commande sur WhatsApp est 77 730 87 87 Je de meubles. ci Tapis Rouge day neex ban jigéen mooy jubloo doomam ba pare di ko beddi xanaa jigéen ju bon papa mun du sa changer jum nga de sa papa mi changé na bu baax lepp lu mu def amna na fu ko tek aduna jangal nako ko de foo ci bir ñii dañuy waxtan motax ma tok fi lu sama yon ci sen waxtan man tok fi kula ndeer bi dima ray kon nga dem xaar len ci salle lolu damay meuna am jamm am sai e bi tas naku te mayatuloo mu ndaw jox naa ko papaam moom moo koy yor kon madame Lo monsieur Lo wàlluwutul ak yow dara du pension alimentaire du loyer du xaalis exclusivité bi sa yaay rek la koy jox. bi ge bul mo mës takal di jabar yow nekkati mëno tan man mi rek ma mëna tan birub jabar mom bul ci dugati xana bëggo ñeenteel te man dama la no dama la no lol sax sax. yee bul ma mës a takkal jabar yow ndekete mënoo tànn man nii rek maa mën a tànn mbirum jabar moom bul ci dugg di